man lama wax te d'accord ci moy Macky Sall le 2 avril ne quitter Sénégal nu gëna gën parce que ñu jitu parce que constitution bi loolu ko sante te conseil constitutionnel digël bobu la ko jox. bu fekkente ni néna le 2 juin mënul dem ndax mënul démissionner te suba il faut que ñu am lu def su boobaa conseil constitutionnel na jël ay responsabilités jël suppléant tek ko fi mu continuer procédure bi ndax nak Macky Sall li Sénégal jafal warna naa may Sénégal benn bis ndax bal ñoo indi ay guta yoo xamanteni ni kenn xamul lu mu doon ndax constitution musul parawaar ni dana am président de la république boo xamanteni dana toog ba mandam jeex te élection du am musuñu ko bind si constitution bi loolu moo tax tey li ñu dal dal ñu parce que constitution dafa wax ni président de la république élection ñu ngi ko tëgg le 25 février bu paree le 2 avril diggante boobu passation bi la war a toog pour ñu def ko mais boobu xalaatu doon ni élection yi bu mois de février jotee kenn du tëgg élection présidentielle ñaareel bi article 31 bi dafa wax ni président de la république dafa war a démissionner bu fekkente ne mu si article 31 bi day démissionner wala mu dem ba mënatul wala mu faatu léegi pour pourquoi président de la république lillahi wa rasul ñoo dem ba nga xam ne le jot na à 23h45 wa 23h50 yow nga démissionné bàyyi président assemblée nationale mu wér bi nga xam li nga Sénégal lebal ci fukki at ak ñaar. nga fay leen si benn bis boobu nga xamante ni ci ngay bàyyi pour que intrant bi mën a ñëw mën a ne procédure bi ndax nag lu ëpp tuuru ndax mënuñu laa may pëpp nga jël pëpp jël pëppet loolu moom duñ ko accepté tey duñ ko accepté ëllëg loolu moo tax comme damaa nekkoon acteur si participation dialogue bi nekk acteur si li nga xamante ne moom mooy commission yi commission yi bu ñu génnee ñu wax ni lii la ñu tënk te la ñu tënk bokkul ak lan wax dinaa taxaw weddi ko wane ni loolu ñu wax du dëgg joxuñu Macky Sall fure boo xam ne dafay continuer toog fii ba le 2 juin le 2 juin boobu nag ay proposition la mais conséquence constitutionnel moom mooy ndey mbill gi bu ko validé baax na bu ko wal diwut lu mu validé danañ si tënk pour dem si élection yi ci jàmm ak dal te Macky Sall du fi bokk loolu mooy li ñu ñor leneen li nga xam moo jëm ci mbirum am amnistie bi wax na ko démb waxoon na ko barkaati démb wax na si ak ñun aussi am na si buñ koy def pour faté, pour jéggale pour baale tapé xol yi pour continuer 2024 nek 2024 quatre nekk élection deux bu bess lay doon d'accord na pour ñu waxtaane ko waye bu ñuy def amna si war nañoo fàttaliku ñun ray ñan lan juroom benn fukki nit faatu nañ depuis 2021 ba léegi nan leen leen def dañ leen di indemniser waa wala déet. ñi ñàkk seen cër nan lañ leen di def da leen di indemniser waa wala déet ñi ñàkk seen liggéey nan leen leen def dañ leen di indemniser waa wala déet ñi nga xamante ne dañoo ñàkk seen matériel nan lañ leen def dañ leen di indemniser waa wala déet. loolu moo tax ma ni balaa loi amnistie bi ñëw assemblée nationale maa ngi propose ñu génn cent milliards francs CFA teg ko si kaw taabal te commission boo xamante ni ñi nga xam ne ñoo lor woon ci événement yooyu ñu ñu dàmpe leen ko bu ko defee nag su boobaa ñu toog waxtaan xool li ci réew mi ñu def ko. fàtte leen pour que mën a continuer élection yi fi ñëwaat kenn ki xam moo ko war jiite mën a tal leneen lu nekk di fayantoo ak di toppante. parce que tey jii président Ablaye Wade bu ko neexoon avant muy dem mu dugal loo am na si boo xamante ni lépp loo xam ne day jëm si mbirum crime économique. mu effacé ko su boobaa gars yi kenn di fu nekk di topp kii wala kee mais malheureusement defu ko loolu moo tax ki xam moo ñëw bi mu ñëwee sukkandiku si politique ubbi créé yi topp ay nit ba tey liggéey bi tardé tey bu ñu ñëwee jël réew mi 2024 ab coalition bu ko mën jël wala nit ku ko mën jël bëgg a ubbiwaat ay dossiers judiciaires yoo xamante ni daf lay tardeel loolu su boobaa tamit yaakaar naa ni du tax nga liggéey ci 5 ans yooyu noonu moo tax buñ koy def nañu ko encadré débloqué cent milliards yoo xamante ni si biir Sénégal yu jóge ñu teg ko maanaam fenn foo xamante dafa am commission boo xam moo koy seere képp koo xamante ni da nga fa amoon blessé wala nga faatu wala nga yàqule wala nga ñàkk sa liggéey ñu indemnise la pare jéem a nag xool bu fekkente ne ñi nga xamante ni ma mën na leen pardonné ñu pardonné parce que ginnaaw ay ginnaaw loo gis nag ci ci waxtaan lay mujj ndax guerre mondiale ci waxtaan la mujj guerre Ukraine Russie ci waxtaan la mujj guerre Israël Palestine ci waxtaan la mujj te jàpp naa ne réew ko bëggee tënk yor il faut ñu waxtaane ko waaye waxtaan bi tam day ànd dëgg waxtaan bi tam day ànd maam loo xamante ni kenn ku nekk da ngay wax la nga xam mooy sincérité ci yow loolu moom moo tax naa leen woo pour waxtaan ak yéen ci waxtaan bu gàtt boo xamante ni mooy point yi nga xam moom lañ jotoon na jële foofu pour bi mën a jàll mais luñ si mën dem tamit euh, danañ si waxtaan ak ñun si war a waxtaan xool ba xam ñun dañ koy wote wala duñ ko wote ndax kat Macky Sall moomuñu askan wi moo ñu yom te askan la ñuy bàyyi xel. Euh, sëñ bi euh, coalition nekk fi askan wi ak yow.